ni ñu koy baaxoo di wax rek bu saa waa ji ne dama commencé yëg nag ak wéetaay. ndax ni ma daan féetee euh, droite nii. Mm-hmm. lu ma tëgg mu mbalax tulli ko <laughs> wax yàlla daal. yàlla gaaw a ñëw ak jàmm. amin amin saa si jërëjëf ñu ngi lay sant baax si nuyoo yi. jërëjëf jërëjëf nag waa taset googu nga beral nuyoo nga xam ne da nga faa bari sopp lool. sopp naa leen mag ñaak kilifa yi moom. sopp naa leen. wallaay ndeysaan. sopp naa leen wallaay wallaay wallaay yal na yàlla mot lépp amin am na guma ci ma si yendu damaa xamul gum ca doon waaye am na guma ca ma si yendu xaw naa yàgg nag waa xaw ànd ak ànd ak oustaz baari jenn baari jonn mu ngoog baari jonn waaw nekk fi la ci faas mu ngoog kooku sama nijaay la mu ngoog tasitam googa de mas naa faa yendu waaw ngoog mu ngoog foofaa laa dëkk nag aha ndeysaan kër googa nga yenn noonu boo xoolee na benn dëkk bu lay féete noonu ci sa bë bë sa bët sa bët gànnaar waaw ba defee lépp tubaarkàlla fooy fooy dase tukulóor. dase tukulóor. dase tukulóor. jërëjëf jërëjëf am na salaam. jërëjëf. Mm. baarakalaa fiika. amin eh, na nga def nag. waaw sant yàlla tey góorgóorlu. ni ma wéete wéete nga nii. ah waaw waaw. man fi laa nekk biig man kese naan daxala dugg na xar ji génn <laughs> xat maati pët pët la mun ba une heure <laughs> nga de nga tàggatoo ñu bi. xam naa yàlla sooy dafa. tukki su gàtt rek. saa yu ah, yàlla. dafa seeti Joe Biden. ah Joe Biden waaw mu nga. moom la seeti. waaw wax nga dëgg. xam naa yàlla yàlla daf yóbbul ko ci mikaay ak yom si nii peut-être. waaw wax nga dëgg waaw <laughs> waxoon na ko ne Joe Biden bu sele ba pare naa ko seeti. <laughs> waaw macha allah. kon xam naa nañ nuyu Trump xam naa du ñàkk mu gis ko. ah Trump ñibbi na. ah, ah na fa mu dëkkoon. waaw. Ah. ñibbi na keroog kay euh, hélicoptère bi jël si na ko. ndeysaan moom ay bagage ba naan maa ngi dem waaye dinaa dellu ci nii mbaa ca naa mën na ko demal rek. ni ko mu koy. <laughs> waaw kay li ci mën ndaxee moom demal <laughs> eh, euh, guddi gi. waaw alhamdulilah guddi ajuma moom. Mhm. muy xam si guddi jàpp bu ca des. day mhm. guddi gu barkeel. wallaay ndax sunu borom daa am ay temps ak i milliers. Mhm. yu barkeel. milieu temps yu barke lii ci la guddi bokk milieu yu barke li ci la jàkk ak jumaa bokk barakallah waaw alhamdulilah yaa ngi ñemee jamono rek waaw nun la ah comme ni nga ko waral di waxee rek <laughs> ñemee jamono rek ginnaaw noo ko moom hmm, te man ko bu nu ko ragalee rek mu mu nu hmm. yab na aadam xalaqtul ashyaa li ajlika la suñu borom waxoon ci hadiisul qudsi ba wallaahi ndeysaan adduna yéen a ko moom hmm, man maa leen moom waaw adduna yéen ko moom. Mhm. man yéen laa moom. waaw waaw. ñoo baax borom. te mu fe mu nu fee weesu. Eh, te mu rëy lum ñu may. mu nu fee weesu te defal luñ ko dara. ndeysaan <laughs> est-ce que. waaw. est xam naa tey de comme suñ bàkkee néew fi. si mhm. eh, ma xalaatu waxtaan tey daal dama ne su ma ñëwee ñu waxtaan appel au calme. Mhm. ndax fii réew mi toll. ak fii tension yi toll. képp koy wax ci télé mbaa ci rajo. war nga euh, mbëmbëstal jàmm ca la ngay wax mm-hmm. ndax réew mi sunum réew la njaboot gi sunu njaboot la mm-hmm. acteur politique yi sunuy njaboot lanu mm-hmm. te Sénégal rekk ci perte Sénégal rek ci ñàkk ah, bu tolloo fii nag yéen ñi nga xam ne ay porteur de voix ngeen xalaatoon naa ngeen appel au calme les jeunes ak acteurs politiques yi ak mboolem ku yëngu ci société civile ñëpp ñu dal ndax lu dal man te yaakaar naa xët-xët du ko indi jërëjëf euh, ñu ngi lay fay nuyoo di la nuyuwaat eh, xam nga mu pénc mujj tamaa la tudd mujj tamaa nag mooy képp koo xam ne nationalité nga am te li lijjanti luñ la ko xanaa juddoo la ko may ca pénc ma nga bokk mu am ay pàcc nag ñu ñu tuddee ay politiciens ñu tuddee société civile muy ñun maag yow ak ñi mel ni ñun am ñu tuddee ay sëriñ wala ay kilifay diine ñi nga xam ne ñooy politique ñaare ñooy xëccoo ko dóorante pour kurpañaka waxante yeneen ba far lu ca juddu juddoo ca waaw ñoom <coughs> daanaka mën nga ne kenn ku nekk ñoom jàpp na ne réewum Sénégal am réewama waaw jàpp na yaa ko moom waaw politiciens yëpp daanaka loolu lañ jàpp dañu jàpp ne réew mi seenum réewa waaw danañ ci xeex danañ ci dóorante danañ ci def lépp buñ tegee nga naay dem ci sëriñ <laughs> waaw. wax nga dëgg dem ci sa buñ tegee nga naay dem ci sa waaw waaye xam nga nangam nangam nangam xam nga te comme sëriñ moom ñaare loo wax rek mu ne wax na dëgg hmm, waaw sëñ de moom ànd ak nit ñi rek léegi nag sunu yonent ba daa waxoon ne sallallahu ñaar a ngi nii ci sama xeet bi bu ñu baaxee xeet wi baax hmm. bu ñu baaxul xeet wi du baax hmm. suñu amee jàmm xeet wi am jàmm buñ ko amul xeet wi du ko am allahu akbar sin faani hmm. min ummati hmm. isaa salahu hmm. salaha annaasu wa isaa fasadu fasada annaasu ñu ne ko ñoo ñan la mu ne al umaraaw politiciens yi wal fuqahaa ak sëriñ si ñooñu fi ne jàmm jeeg ñàkk jàmm jeeg tëli tëli ji ñëpp ñooñu rek lañ koy laaj ñooñu rek lañ koy laaj kon ñaar ñooñu dañoo war di bokk taabal di waxtaan di jubbanti lépp lu ne ñoreet bëgg a jóg ñoom dañoo war daal di gaaw sol seen dàll woo ñu ko séq buñ ko ñëblu dañuy woo ñu ko séq bu kii waxee kii wax ñaari wax yi buñ ko déggee dañ xam ki tooñ ak kiñ tooñ buñ xamee ki tooñ ñu joxoñ ko baaram ne ko yaa tooñ wax ko ca kaw ñëpp dégg ko ki ñu tooñ ñu ne ko baaleel ñu continé ñu continuer barakallah waaye buñ ko defee seen yëfi bopp jaral leen toj bopp jaral leen sànni xeer jaral leen taali pënu jar leen nangam ña ca si loolu jaral leen ko ñuy xëccee loo xam ne ñoo moomuñu ko ñun ñoo ko moom ba far nar ñu cee xaañaale nun ah, dana loolu dana métti lool dana te yun alquran nee na hmm. fitna moom muste yem ca ña ko taal déedéet fitna hmm. muste yem ca ña ko taal jërëjëf ci sa laaj bu am solo bi barakallah fik jërëjëf oustaz euh, bi may introduire sax xam naa ne Euh, daa nga wax ni boo fekkee ñaar ñuy xeex bala ngay woote jàmm. Mhm. dangay seet ka yor doola jey dóor nga téye ca loxoom ni ko bàyyil te wax leen jàmm. sànn daa mel ne ci sa biir wax sa xaw nga tontuwaale loolu. alhamdulilah. mais sax ci biir euh, doxalin bi nga xamante ne moom la sunu système mu tëralinu réew di doxal. Mhm. mu mel ni daanaka dañ ko dañ ko bàcc dañ ko ber ay pàcc pàcc. Mhm. sëriñ si dafa fu ñu yem ci ni ma xalaate politiciens yi am fu ñu yem ci ni ma xalaate mm-hmm. waaw mais bu demee ba ci biir group yooyu am ñuy xeex ci seen biir kon kan moo war a nekk seen arbitre maanaam politiciens yi pouvoir opposition comme ni mu amee suñu réew mi tey ndax sëriñ war na mën a nekk arbitre bu taxaw arbitre leen ñu mën a jaar ci li mu li mu soufflé. jërëjëf euh, sëñ Mbàkke nee na ñoom ñu ngi ci quatre heures du matin mm-hmm. xam na ñoom salaatoo guñu <laughs> est-ce que ñoo ngi koy fay nuyoo tabarakalla mi ngi nii nee na mi ngi ñuy ziar baax a baax di ànd ak ñun jotaay bi ma nga fële ca Amérique waaye ñu ngi ci quatre heures du matin. tabarakalla salaatoo guñu. ndeysaan que est que. Oustaz uh-huh. gis nga politicien bi. Hmm. sëriñ bi. Hmm. société civile. waaw loolu duñu wërta seetaan ki koy yàq mbaa mu koy salfaañi di ko def. Hmm. bokkuñ maanaam boolewuñ leen ci dañ cee bokk. dañ cee bokk. boolewuñ leen ci dañ cee bokk mm-hmm. suñ ci bokkee nag te nga xam ne dañuy tëdde njaaxaanaay mm-hmm. li ñu bëgg a wax lépp dañ ko mën a wax ak kuñ ko bëgg a wax mm-hmm. boo far par nga par nag doo ko man doo ko man déedéet moo tax ab sëriñ parti yi ñoo xaj ci moom waaye moom xajul ci parti ab sëriñ waaw parti yi xaj ci moom waaye moom xajul ci benn parti loolu jar xel la. est-ce fan yi yaa ngi ci sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. waaye fàttewoo ba mu gàddaayee ak si almadina. Hmm. war ca gëléem nga Aboubacar war ca ga ca des. Hmm. moom gëléem gi daa ak si rek. préfet jàpp ca nos ba ne ko kaay dal sama kër. waaw am déet. waaw xëccoo ne sama gan. waaw gouverneur déet kii kay sama kër la jëm <laughs> ba ministre ba ne déet ba ba ba ku ne nit mu ne daawuha fa innaha maamura. xam nga loolu li muy tekki bàyyi leen ko ci ndigal la nekk. Mm-hmm. mooy man du ma ganu kenn ganu ñëpp laa. Mm-hmm. waaw ndax bu doon ganu kenn bu daloon kër préfet dañu yàq di ko yëg naan su préfet naka sa gan gi waaw moomale ko ko moomale ko ko ci kon message bi mu bëgg mu àgg bu àgget dana am lu des mooy ganu diw ga politiciens yi noonu lañ toll seen diggante ak sëriñ si waaw mooy noonu la ñu toll mooy ñun ñëpp noo leen bokk nan nangu nu bokk leen ñun ñëpp léegi tey bu fekkonte ne tey sëriñ doon na àtte mhm. lii maanaam bu ne sëriñ sa xëy na mu xat su lislaam doon àtte mhm. naka lay àtte lii am na solo bu ñool ñool amee hmm. wa in taifataani min al muminina iqtatalu hmm. fa aslihu baynahuma la wax wallah waaye daf ca teg baatu fa in baxat waaw <laughs> naka lay àttee loolu kon su boobaa hmm. day woo ñaar ñu ko siq saa bu ñol-ñol amee nag bu rëy bu ndaw bu xaw a ndaw bu xaw a rëy bu ponkal ñaar ñu ko seq ngay woo daal di déglu kenn ki mu wax ba àggal nga déglu ki ci des satalin hmm? kenn te déglu ñaari nit ñu wax ñoom ñaar ba àggal te xamoo ki xamoo la xew wax ah, gañ il faut nga déglu leen nag hmm, hmm, noonu diine lislaam bu doon moom nun lay def day woo ñaari kuréel yi ne kii waxal mu wax ba jeexal mu ne kii waxal mu wax ba jeexal moom fi mu taxaw dana xam li xew. dana xam fi mu taxaw mu ne. Hmm. diw ba nga ne waaw mu ne diw ba nga ne waaw mu ne diw ba sëgg mooy la yow mi yaa nekkul ci dëgg. allahu laal loolu la wax. la ilaha illallah. boo ne ko nekkul ci dëgg mu bëgg a jóg dem nga ne ko toogal. fa in baxat toogal. Hmm. faqaatul lati ne la toog fu ci ay loxoom. Hmm. sunu borom nee na yéen mbooloo mi nga xam ne xam ngeen ne moom moo nekkul ci dëgg àndal nag ñi nekk ci dëgg lum lum ko jaral na leen ko jaral fa qaatil lati tabqi hatta tafia ila amrillahi lum ko jaral na leen ko jaral mais loolu Oustaz Alioune alxuraan ni la ko jàngale te leer na nañ nañ waaw jaarama alxuraan jaar waaw góor jaarama alxuraan jaarama lislaam waaw góor eh, kon Oustaz lii dafa mën na del mën naa dellu si comme li nga daan wax nii luwaay tubaab waaw kon dafa mel ni kon tubaab bi xaw na réussir ci lu bari ci suñu xol yi. Mhm. ba léegi kenn xamatul lu am valeur kenn xamatul ko am crédibilité ndax li nga xamante ne moo daan noosee di sunu euh, yoon yi nga ci lañ daan tegu ba lu ki cas critique nga am xëy foo man mën ko solutionné. xam nga tey am na ci penc mi ku ñuy wax ñoom Ablaye Makhtar Diop. waaw ndeysaan ci lébu gi. Mhm. amiin yàlla ko yàlla sàmm. Mhm. sunu auditeur la. dafa am seen penc mi. démocratie bu ci am pencum lébu démocratie ba mooy ni ñuy fale ak ni ñuy defareeb diggante penc mu ci nekk jaraaf jaag ndey ji réew jaag nangam noonu ñu ko nose noonu ab état la waaw ñoom bu ñaar ne ñool ñool ñoo leen di woo ñëpp toog laa ilaaha toog ñu déglu kenn ki mu jeexal ñu déglu ko ci des ñoom fi ñu toog foofu lañ koy regle amul demal ma ñëw. laa moo tax li ñuy dem police bëriwul ndegam am na sax xanaa lu critique lool te tëleel hmm. donc loolu loolu du dara lu dul hmm. ni ko alxuraan jàngalee. Hmm. la ko mag ñi mooñe rek bu jeex tàkk donc penc mi oustaz Alioune. réglé ko yomb na kilifa yi ko séq koo xam ne boo ko wooxee mu ñëw. boo ko fekkee mu xaar la ah yaa ci des. dëgg yàlla yaa ci des. Euh, sa dem na ah. laay joxante. réewum tubaab nag ma ma <laughs> jeexal. waaw réewum tubaab buñ bindee loi. Hmm. ñoom dañ koy doxal. ñun nag buñ bindee loi dañ koy denc. di dem bam na këtt na jonn ñoo am allahu akbar mhm. eh, ba nga dëgg de mais ba delloo ci alquran fi suñu am na fa suñu woon subhaanahu di waxee mhm. in tanazaatum fi cheyin fa rudduhu ila allah mhm. léegi loolu kon ni xëcc ni penc mi mel mel nii bu fekkoonte ne yëlëbu ñu woon lislaam ci doxalinam kon est-ce que kon ñun daanu agsi fi ah yëlëb nañ ko ci ci zaayo ba ci baatin sax <laughs> ndax fa rudduhu ila allah su fekkoon sax su fekkoon hmm. sunu loi yi nga xam ne mooy loi euh, yi ñu ko ñoo ko tegal suñu bopp même su fekkoon dañ cay dellu sax mu am lu tane waaye duñ dellu ci alxuraan duñ dellu ci loi yooyu noonu ci bànneex ak yaa ma neex ak ni lay def rek ci lañ koy delloo est que waaw loolu <laughs> jàng nga sóoratul kaafi wallaay keroog ba Zul Qarnayni ñëwee ci dëkk ba hmm. dëkk tukki bi mu njëkk a tukki allahu akbar dañu ne ko ñun dey benn problème lañ am mhm. mu ne luy seen problème ñu ne fii fii mhm. dañ dul tënku ci loi mhm. waaw ñun daal fii daal problème boobu lañ am mooy dañ dul tënku ci loi suñu yoon nekku ci loi ñun suñu nekku ci loi mu ne abo ah mu ne waaw ah, mu ne leen dul loolu jeex na tey <laughs> loolu jeex na tey tey ngeen tënku ci de tey ngeen tënku ci de gis nga hmm. ci lañ ko waxoon ne ko yaa zal qarnayni imma an tu'azziba wa imma an tattaxisa fihim husna ñaari yi rek kay am ñu daal dañoo bëgg léegi an tu'azziba ku tooñ dumal nu ko wa imma an ku def rafet neexalal nu ko mhm. waaye nun dandul lëf loolu ñun ki def man zalamaak man amana la ñemale mooy mhm. leen tey lay jeex gis nga xale boobu zul xarneen oustaz Alioune mooy leen tey lay jeex tey man zalama tey lay xam ne zalama man amana tey lay xam ne amana mais bu fekkee ne lu waaye lu ki ki tooñ ak ki tooñut ki def ak ki defut ak ki wax ak ki waxut ñun ñëpp noo bokk yam sol ci benn saako li daloon ñii ba sul xarne ni ñëw mm. kon moo li moo ñuy dal moo ñu nar dal moo ñuy dal mm-hmm. te lu am solo nag loolu sa <laughs> jërëjëf oustaz ci leeral yi. alhamdulilah mais ci ci wàllu euh, euh, aaru. Mhm. waaw ak mooy maanaam protection. Mhm. xam nga lislaam dafa tëraloon diggante góor ak jigéen. Mhm. am na mu def ay législation am ay sart ak rëdd yoo xamante nii pour prévenir yu mel ni yi am ci penc mi. naka nga gisee sunu dëkk bi ni nga ne noonu la liberté gi mel. xale bu jigéen boo xamante nii du sa koj armal mhm. sol lu ko neex fu mhm. ko neex man faa dem mhm. ku ko invité mu ñëw heure bu ko neex dox góor gu toll lu mu war a toll nga ni doo ko xool doo séq moom dara te boo ko ne korfet ñun la loo article sàngam bëgg a dóor ci sa ndodd mi ay article yoo xam ne yow jàngoo ko xamoo ko ana lu teewoon ñu mën a aar xale yu jigéen yi ba seen doxin wala seen demin wala kaabaare yi walla auberge yi wala liberté gu ëpp gi ban taxawaay la ci état war a taxaw pour mën a aar góor ñi luwaayu tubaab la du tere dara <laughs> waaye tubaab <laughs> du teree dara. du tere dara. waaye bu la bëggee jàpp nag. loola mu daawul tere. tey nag la koy tere. loolu moom. waaw lu tubaab la. seetlu ko rek de. fi ne lu tubaab loo fi dégg mu ne nangam xaraam na am na. déedéet déedéet. yooyu ngay wax noonu ñu ngi bët yi. kon amul loi bu leen bu leen di condamné ci loolu. kon est-ce yooyu du ay fiir. ca Tiwaawan hmm. maam Cheikh El Hadj Malick dañ koo àkk si na ko jógal wax ci diw mii radiyallaahu taala anhu day naan jógal ñu dem duma ko mu ne da ngeen bëgg ñu duma ko buur dumanu ceey <laughs> ñu ne ko ah ndax la muy déet luwaayu tubaab bi fan la waxee ne sàngara da koy tere fenn nag waaw mu ne ñun ñi suñu diine lay la sàngara li ñuy tere sàngara ak dégg waaw ñu ne ko waaw dangaa war a jóg naa nga mekk naa mu ne baax na kon nañ ci xalaat ñaari fan ak ñett mu am as taw su am ca dëkk ba eh. jàkk ji fukki nit ñëwut <laughs> allahu akbar <laughs> tey mu xumb de tey mu xumb de <laughs> musalmal na ci yàlla ba jàkk ji ña doon ñëw ñëwaat muy leen waaw bërki démb lu leen téye woon ñu ne taw bi mu ne ah waaw taw beeg bal yi baax na <laughs> xam sa jamono daa baax de Oustaz Alioune hmm. moo tax tubaab bi dafay bàyyi ay yëf nu ko tudd nu nu ko tuddee fiir gi waaw noonu la koy def rek bàyyi terewul daara waaye léeg-léeg mu xëy rek ñu ne kon moom gi moom gi ñu wax ñu ñoo ko moom suñu bopp daal ko su taamee ne kon des na waaw parce que dafa am yu yu yoo xam ne kilifay politique yi kilifay diine yi seen engagement la war a doon xaw ma nag kañ lay doon. loolu mooy question bi waaw xaw ma nag kañ lay doon nu moom sunu réew mi moom sunu école yi moom suñu penc mi moom suñu télé yi moom suñu rajo yi mu nirunu gëj nga seetaan théâtre déedéet. yaa ngi gis sa bopp ci théâtre yi wala wala réew bi non non non moom kay yi ma gis ni ju bari du sa du sunu culture. yu ci ëpp jeex na. waaw yi ci ëpp daal du sunu culture nag ñang yi la ñuy kër goo dem. Hmm. théâtre ñag yi la ñuy seetaan. lu hmm, hmm, ci ëpp. ndax sunu théâtre moom du refléter sunu culture. culture non non. moom kay dañuy copier tubaab yi mbaa yeneen civilisation gis nga bi nga daan jàng littérature arabe al adab al arabi yi mm-hmm. al adab al arabi yi bu arab yi waaye rek nga xam ne kii mm-hmm. moom natéram bi mm-hmm. ñoo taqaloo est-ce que xam ne kii il est cultivé xam loolu sa loolu dëgg la de da nga daan xool daaray kocc bu njëkk waaw da nga daan toog di seetaan teet bay jooy fi nga toog maa la ko wax maa la ko wax allahu akbar maa la ko wax. waaw daa mel waaw daa mel yaa ngi yëglu. maa ngi yëglu. kon naa la baa ngi dem te ñëw. bu leen doxal seen ak déglu parce que doo fa yàgg. du ma fa yàgg incha bu leen doxal seen déglu bu 9h45 jotee daa am ñu bëgg ñu yëg te yëg yëgleel leen yi ñu bëgg a yëgle waaye bu 10h30 jotee tam noonu la 10h45 ba baa ñu yëkkati jotaay bi ci ñooñu lañ bëgg ñëw te dellusiwaat ci jotaay bi bu leen ko toxal. mooy fi ñu doon waxtaanee ci wàllu jàmm. lan gàlla may leen ko. lan mooy njëgu jàmm. jërëjëf njëgu jàmm oustaz hmm. mooy juróomi yëf. Hmm. njëgu jàmm. Hmm. mooy juróomi yëf. nit ki dañ koy sàmmal bakkanam. loolu la waroon ñu wut ay alkaati ay gendarme ak ay nangam ñu sàmmal ñëpp seen bakkan. muy benn bu ñaar bi dañ koy sàmmal am amam lu waaye am lum mu tuuti ak lu mu bari bari ku ko jël xam ne jël nga yëf jaabur keroog lu doo ko jëla ci muy ñaar ñetteel ba dañ koy sàmmal gëm-gëmam ni mu gëmee diine ni mu gëmee politique ni mag ñi ni mu nag koñ dañ koy sàmmal ab gëm-gëmam ñeenteel ba dañ koy sàmmal am xelam ndax bu ñu saamem xelam ci marché bi ku ñëw jël xel ma lu ko neex def loo ko mhm. ñu sàmmal ko deram juróom yaa juróom yii hmm. mooy prib jàmm allahu akbar barakallah kero ba nu dajee ndeysaan ca fële ca barab boobu jàkkaaroog RTS te ñu fay tàggat gaañi waaw xaj Aziz Al Amin moo fi ñëwoon keroog doon doon ubbi jataay ba ñu ne ñan ñoo bëgg a jël kàddu nga kat sama loxo ñu ne ku ne ñaari minute <laughs> ma ñëw ma ñëw wax lii mu ne tegal leen ko ci yeneen ñaar ndax mu waxaat ko <laughs> yal na ko yàlla. yërëm euh, yokk yërëm. amiin amiin amiin te bàmmeel di noflaayam. amiin yaa rabbi <laughs> donc juróom yi. mooy prix jàmm. léegi nag tubaab yi ñooy wax naan du du ab moo bu ñuy wax. jàmm jàmm jàmm la du noonu. bu bu bu ñuy def la. programme la bu ñuy def ba juróom yi ku ci nekk am ko. jàmm ne ñooy. barakallah sa xam naa kon nga dénk ñu tuuti ci wàllu euh, xët-xët. Mhm. lan mooy conséquence wu ñàkk jàmm. ñàkk jàmm mooy li nga tudd léegi xët-xët. Hmm. nga xam ne waa ji dafa bëgg maap ci juróom yi benn. Hmm. nit ki taxaw ne ko doo ko maap. moom mi ko bëgg a maab du am jàmm moom mi ñu koy maabal du am jàmm. waaw <laughs> maa ngi dégg di bii ngay wax mel loolu nga naan kii jàmm kii fayu du am jàmm. Sëriñ Cheikh ko daan wax. <laughs> bu leen tooñ bu leen fayu lu daan wax. Mm-hmm. cheet bu leen tooñ. bu leen fayu bu leen fayu. ñu ne ko waaw ko mu ne kuy du am jàmm mukk. allahu akbar kuy fayu. waaye kuy fayu du nopp lu mukk. bi xoolal ma bii xikma waaw najaayu waa jooju toog ci sa wet bàyyi mbay waaw <laughs> dafa daan wax ne hmm. gis nga ragal hmm. ma ne ko ah mu ne mooy première gàllaaj ragal waaw allah wax na xam-xam de mu ne ndax fit wu dëgër hmm. benn nga yàq penc mi mbaa nga yàqal sa bopp mbaa nga yàqal ñëpp c'est-à-dire jël naa bind. nee na waaye ke waaw mu ne gis mu ne ma soo gisee yàlla naan ragal leen ma nee na Salim. Hmm. mu ne soo gisee yàlla naan ragal leen ma. Hmm. dafa xam ne ragal gàllaaj la. Hmm. te safaanu ragal. leneen la. est-ce que yëg nga ne seetaan nee na ragal na yàlla. waaw. waaw. <laughs> inni axafu laa rabbal aalamiin inni axafu laa rabbal aalamiin. <laughs> seetaane bon. gis nga loolu lu am am solo la ci penc mi. Mm-hmm. tabaarakallaahu te eh, ñu di dañ ci dul bàyyi xel. Mm-hmm. Mm-hmm. juróom yi may maye jàmm. ku ci bëgg a maabal kenn lenn. mu taxaw. nga ñàkk jàmm mu ñàkk jàmm ñëpp ñàkk jàmm yàlla ñu yàlla dimbali. yàlla ñu yàlla loola dimbali kay. di loolu sutura xéewal xam naa daal oustaz loolu yéeme na loolu de mënu fee wees ñàkk jàmm daal moom fitna dëgg dëgg dëgg dégg naa sëñ bu mag bi sëñ Tuubaa nee na radiyallaahu taala waaw nee na gisul lu ko lu ko gën fii gisul lu gën fa. maa la ko wax de loolu la wax de jàmm mu ne gisuma lu ko gën adduna gisuma la ko gën àllaaxira daan na yàlla ñu yàlla may jàmm. allahu akbar kon nag sax mooy nga dénk nu balaa balaa balaa docteur Mamadou Ndiaye ñëw. dénkaan bi mooy. seen yi xale yi ak politiciens yi surtout acteurs politiciens yi. dénkaan bi mooy. Hmm. ñu jël li ma waxoon léegi rek. Hmm. fexe ba sàmmal nit ñi seen juróom ma sàmmal la ko nga sàmmal ma ko nu sàmmal ko Pape Dieye. ñëpp daal di am jàmm waaye bu ñu ko see seetaanee ñu maab yooyu jàmm daal di jafe. man na sax li ma xaw a jaaxal nag mooy gis nga li nga yi nga yi nga lim waaw moom daa mel ne sàmmonte wu ñoo ak moom. déedéet parce que boo xool nja njàng mi. waaw xoolal fi mu yóbbu. législation yi nga xamante ne moo ñu mën a may ku ne du am sa droit nga yëg sa bopp sa réew. Mhm. gis nga fi mu nu yóbbu. réew yu mag yi dañoo woote ay convention ñoom seen yooyu. kaay leen ñu ànd ci lii te ngeen bàyyi la ngeen nekkoon ñu ne ay ca. bàyyi fa nu nekkoon. <laughs> Ah, bu nu ko nangul du rëq suñu digg. ah de xam nga ñu rëq suñu digg te nga jóg taxaw moo gën turki ba nga ne taxaw na léegi. rëq nañu diggam bay bëgg a dee. fu dalee na faalewul. ambaar googu loolu nañu dugal ko ca.